télévision Futur Média ñuy jéggalu ci simili yu bëri ñu xàppati euh, laaj ak tontu war a dox digganteeg euh, gan gi teew na euh, Momar Ndao ñu ngi lay nuyu. Elhadji Abdoulaye Der maa ngi lay fay. di nuyu ñiy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp. alors maa ngi tàmbalee li tax euh, déjà retard bi. Hmm. embouteillage yi yéen consommateurs yi xanaa tamit bokkul ci yi ngeen xam ni di ngeen koy kaas ak di ko di ko lijjanti. waa in kay ñu ngi ci kaas. di ko hmm. lijjanti parce que dafa am lu ñuy wax sax euh, fonds d'entretien ci autonome. parce que li nga xam ne mooy tali yi ñu leen war a entretien hmm. euh, fonds boobu mooy génnee xaalis bi nga xam ne moom la ñuy jox ñi koy exécuter. mais moom est-ce que entretien tali yi rek la tamit. pour du loolu kese. Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne moom rek ci àddina bi moom moo am ay gare routière ci kaw tali maanaam fu oto yi di gaare di xaar ay clients ci kaw tali Sénégal rek la am waaw donc dëkk yu organisé boo am da ngay gis foo xam ne gare routière la ñu xam ne gare routière la waaye gare routière ci kaw tali Sénégal rek la am loolu bokk na ci li nga xam ne day indi jafe-jafe circulation. oto yi fiy dugg tamit tali bi ñu am de c'est pas extensible. Euh, voilà à souhait et est-ce que tamit jamul ñu xool beneen système. waaw Nigéria ñu à un moment dañu mujj def pair impair. waaw na tamit nit ñi dañuy daw uti ñaari ñaari oto di am impair ak pair. bu ñu nee na yi gaaree mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer des solutions. solution yi bokk na ci formation ni ñuy dawalee. Mm. parce que da gis ñoo xam ne tey jii ni ñuy dawalee bokk na ci liy indi circulation. Mm. da gis voie boo xam ne voie rapide la nga gis nit di ci dawal di daw. vitesse boo xam ne moom dafa waroon daw à droite exactement boo ko waxee wala klaxonné ko sax mu sànni exactement ku ni man beneen bi da ngay gis ñu nekk ci autoroute à di daw ci bande d'arrêt d'urgence bi mm-hmm. nga xam ne foofu en besoin la fa kii yi war a jaar Euh, service de sécurité yi ak pompiers yi et cetera. Mm-hmm. donc nu ci bari dañoo jàng dawal waaye jànguñ circulation jànguñ maanaam code de la route. te une fois nga am permis bi tamit tu te dis que. voilà bon, nu ma neex lay def. parce que permis bi moom euh, dootul jóg sama loxo. très rapidement njëkk yi ndax euh, journée internationale bi. Mhm. ñu dem directement ci fay yi conjoncture euh, internationale bi. Mhm. lan lay peser ci ci ci njëkk yi si on sait que état annoncé na cinquante milliards yoo xam ni renoncé na ko. pour yokk bañ a am. Mhm. mais ak coono am na milliards sax yu nekk ci yoon bi. ñaata cent milliards am na yeneen cent milliards yu nekk ci yoon bi parce que actuellement ñu ngi fexe. pour que d'ici six mois. Mhm. ñu am maîtrise ci prix yi. Mhm. donc euh, état ngi xool loolu nu mu dugalee. mais maîtrise ci prix yi ndax mburu mi ak blé bi ñuy wax. voilà dina mën a voilà xam nga mburu mi dañu jàppoon ne dinañ ko wàññi mhm. mois de mars parce que dañ projeté woon ne dina wàññeeku ba deux cent cinquante trois euh, la tonne blé bi. mais bi bomb yi commencé claté Ukraine rek. ñenn ñi ñemeetuñ chargé mbir mi commencé yokkaat. donc tant wàccaatul carrément. donc duñ ko mën a wàññi. mais Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ci àddina bi ñoom rek ñooy def actuellement ay wàññi. Hmm. yeneen réew yi ngay dégg yëpp ay Europe yëpp ñu ngi am problème. parce que loolu ba kañ dina mën nekk ba kañ. waaw léegi état li mu mooy yenu ko dans jusqu'à dans six mois yoo xam ne dina mën a euh, yenu mbir yi moo tax am na beneen budget cent milliards yoo xam ne gars yi bëgg nañ ko dugal pour vraiment que. pendant six mois ñu mun a am maîtrise ci prix yi. conjoncture internationale bi bu continuer ni ndax pénurie di am te bu pénurie amee ni nga wax lu état am volonté volonté xam nañu yokk kon bu boobaa du mën a. Mm-hmm. waaw du mën a ñàkk bon pénurie mun na bañ a am. pénurie mun parce que booy xool. Euh, Momar en général ay deux mois de stock la am ñun sécurité. waaw mais stock booy renouveler stock yi xam nga mm-hmm. actuellement je donne un exemple bi dafa yéegoon yéeg yéeg yéeg yéeg. Mm-hmm. woon na Euh, fi guerre bi toll. Mhm. pour parler yi fi ñu toll et cetera. Chine dafa commencé am jafe-jafe ndax euh, nee nañ épidémie bi dafa commencé waat. Mhm. tax na ba yenn prix yi commencé wàccaat. Mhm. donc kenn mënu laa wax ne la lii moo nar a xew. mais euh, ay modification ñi ngi am daal parce que selon. situation bi rek gisoo biñ ne rek mille cas am na Covid Chine rek. prix yi commencé naa changé ci yenn côté yi. donc yooyu yëpp day influer li nga xam ne moom mooy njëg yi quoi. actuellement nag njëg yi mooy Euh, blé bi dafa yéeg euh, mais et cetera yooyu yëpp dañoo yéeg ay niveau yoo xam ne euh, su fekkee ne état yéen wu ko dafay métti moo tax ñun ñu ne na ko état yéenu. xam nga yaa ngi naan blé ci solution yi très rapidement est-ce que yéen it ni ngeen wax. Mm-hmm. consommateurs yi. exactement du ñu wax état ñu béyee fi yooyu. mboq ñu ngi ko fiy béy. exactement naka la ñuy def ba mu gën a bëri nga xam ne dootuñu jéggaale. exactement d'ailleurs je pense que ñun bi ñu waxee loolu état nee na jël na. 30 euh, xaw ma ñaata milliards 37 milliards je pense mhm. pour dimbale béykat yi mhm. li nga xam ne ñooy bay ci waalo bi mhm. pour que euh, seen bay gën a compétitif parce que souvent prix yi daf daan seer te Sénégalais yi daawuñu ko jënd ñu sax nee nañ leen nañ defar pour ceeb parfumé pour nit ñi di ko jënd ndax ñu bari dañ foog ne parfumé euh, ñu am doole koy jënd waaye parfumé lu muy naan ci diwlin moo gën a tuuti su ko defee boo newee doole boo jëndee mhm. parfumé def tuuti diwlin. mooy gën a yomb a togg waaw gën a gën a gën a kii comme ci journée internationale bi lañ nekk ban message nga. message bi gën a am euh, solo mooy hmm. ñaar benn bi mu ngi jëm ci état bi. Hmm. mooy na fexe ba nit ñi jot koom. Hmm. parce que bu fekkee ne prix yi yéeg na aussi. Euh, wàcc na même bu prix yi wàccee te nit ñi amuñ luñ ko jëndee day am jafe-jafe kon nañ fexe ba jigéen ñi nga xam ne ñi ngi daan am ay koom ñi daan am ay kii yu ndaw ñu leen ko financé ñu defal leen formation ñu mun a def ay micro entreprise yoo xam ne dina tax ñu am koom bu boobaa prix su seeree tam dina fekk ne dina am luñ ko jënd waxtu wi xoj nañu mais ban message tamit pour que sénégalais yi gën a impliqué ci euh, seen ak ak ci wàllu consommation message bi gën am solo tey ji mooy ñu xam ne ñoom ñoom ñoo war a décider gis nga guerre yi am ci àddina bi yëpp mhm. lii gis yëpp ci consommateur bi la jëm parce que dañuy guerre pour mun jaay économiquement mhm. seen produit te kooku consommateur bi rek moo koy décider alors ñi ngi lay gërëm di la sant waxtu wee ñu bu embouteillage yi tey woon la ñu lay gërëm ci yegsi bi euh, quand même malgré jafe-jafe yooyu